une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ nañ ci jafe-jafe yoo xam ne yi te ba léegi nii jafe-jafe yooyu mu ngi continuer du am ñu bëgg nag yëkkati sunu kàddu euh, ba fuñ ci mën a amee saafara nu amee ko fi loolu mooy li li li sabab euh, ndaje mi te itam moo moo nu tax a jog euh, léegi nag. ñii nga fi gis nii ñëpp amul kenn ku dul ñu dëkk ci gox bi di dund dund gi nga xam ne moom moom la wax. li nga xam ne mooy sunu njàmbat mu njëkk mooy yoon wi nga xam ne moo jógee kër sëñ Modou Bousso Dieng jëm jumaa ja lu mat ñetti at a ngi nii kenn mënu faa jaar kenn amul accès pour mën faa dem ba tax na euh, boutique boutique boutique yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon woowu mboolem liggéeykat bu ci nekk rek daanaka sa liggéey sa liggéey sa liggéey sa liggéey yàqu na sa sa liggéey yàqu na te loolu li ko waral mooy ñàkk yoon wu baax ak ñàkk caa mën a dem ñun nag yàlla dogal nu dëkk ci gox bi ñu duñu tudd ci tudd Serigne Touba nu jàpp ne fii nu nekk jëmmi Serigne Touba ji lañ fi nekkal lañ ko fi nekkale nag mooy wuutu jëm ko wuuti ci taalibe mi yi nga xam ne ñoo fi bokk ak ñoom ñun te ñun ñëpp ay taalibe lañ waaye fas yéene fesal sunu kàddu ba ba képp koo xam ne am nga loo bëgg ñu mën caa taxaw ba loola nga am loola loola nga bëgg nga am ko képp koo xam ne am na la jaaxal itam loola la jaaxal ñu mën caa dox ba loolu mën a saafaraw ndax taalibe yi fi nekk di taalibe Sëriñ Tuubaa bu sëriñ bi wootee ñooy ñëw buñ laajee ñooy joxe buñ wootee ñooy génne seen ñax génne seen i ñam te ñoom ñëpp dañoo gàddaay ngir ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ji ñun nag ñu bokk feek ñoom ci ci ci gox bi dëkk jafe-jafe yii fi am nag kenn ku nekk dund na ko dundin woo xam ne bi am na ci loo xam ne buñ ko teelut a saafara su ëllëgee mën naa jur loo xam ne du ñu neex du neex kenn affaire bi fi ñu toll mooy boo gisee loo xam ne nii neexu la boo ko mënee dindi ak sa loxo wala sa doole nga dindi ko soo ko mënta dindi tam nga naqarlu nga reeteet ko ba ñëpp dégg ko loolu ci lañ nekk nii waaye dëkk bii ñu dëkk ñun duñ def lu yàq dëkk bi wala lu koy salteel wala ñu ñuy xëtt ndigal wala ñuy def leneen amuñu meneen pexe nag mu weesu woo woo ñiñ ko bokkal kenn ku nekk jóg ñu yëkkati sunu kàddu biñ ko yëkkatee nag di ko def bokk yi nekk ci dëkk bi mooy mboolem fu mu war a àgg ñëpp yëg nañ ko woo nañ ñu tam ba wax nañu nañ ñëw ñu gisee sëriñ bi ñu wax ko liñ bëgg parce que ñun itam suñu bëgg-bëgg moo doonoon loolu amuñu keneen kuñ sàkk woon a toogal ku dul jëmmi sëriñ bi nga xam ne mooy borom dëkk bi te wér nañu bu duggee ci noppam liñ bëgg dinañ ko am. ko fii ci Ndaamaatu. waaw fii ci Ndaamaatu nawet bi ba mu jeexee yàgg na waaye ba fii may wax ak yow nii fii ñu taxaw di wax soo gasee bala ngaa jot am un mètre da nga gis ndox te loolu lan li ëpp ci lu ko waral mooy fii dafa am ay canalisation yoo xam ne demuñu fenn ñu am fi ay kàmb yoo xam ne dañ fa daan liggéey kàmb yooyu nawet bi sarse na ko ba mu fees ba teen yi ñu fa doon liggéeyee sax dafa am ndox ba rempli loolu mooy naw di dem ci biir kër yi kër goo ci dugg. amul kenn koo xam ne da nga toog ñaari fan ñetti fan yoo wii de sa fonds wala nga def te am na ñoo xam ne amuñu moyen boobu. am na ñoo xam ne sax dem nañ ba bënn seen ay kër ndox mi di génn ci bi te loolu neexu leen gënulu leen mais amuñu menn pexe parce que amuñ amuñ amuñu moyen bi te mënuñu amuñu neneen nuñ ko def loolu lañ bëgg ñu bëgg nag ñu indil ñu ñoo xam ne ñi ay boroomi xam-xam lañ ñoo xam ne seen xam-xam dana màcc jëm ci loolu ñu seet nuñ koy defaree te lu lii ñu dal nag ba tax ñuy wax dañ cee gën a dañ cee gën a méttile waaye dëkk bépp koy jàmbat waaye nag ginnaaw ña ca ña ca ña ca ña ca pind ba ñoo daanu ña ca ñoo daanu saka ña ca pind ba te ñun nag ñoo nekk ci biir pind ba ñoo ci gën a méttile te nii ñuy dunde nii bu ñu ko dundee ba ba ba nawet bi ñëwaat ak jàmm incha allahu rabbi danañ fi gis loo xam ne lii mosuñ ko mosuñ yaakaaruñ ko woon te ñu ci bari fii may wax ak yow nii am na ay kilifa yu dëkk ci dëkk ci quartier bi yoo xam ne génn nañ seen i kër ndax mënuñu faa dëkk am na fi ay nit yoo xam ne hôpital bii nga xam ne du ñun ñoo ko moom waaye jëmmi dëkk bi moo ko moom ñu bari yor nañ seen malaat ngir jë ñëw ci biir dëkk bi biñ ñëwee ba ci yoon wi tag nañ ci biir ndox mi ba malaat yi yoroon sax rahimallahu dañoo mujj faatu ci ci biir ndox mi. am na yoo xam ne am nañ ay doom ci biir ndox mi te loolu dara dara gënu koo ñaaw te loolu nag am na ci loo xam ne buñ ko teelu saafara loolu mën naa dem ba jur loo xam ne lii du ñu neex. loolu moo waral ñu yëkkatu suñu kàddu bëgg ñëpp dégguñu ko te saafaral ñu ko te nuñ ci mën a gën a taxawee ñu taxaw ci noonu. waaw ci marché bi marché xam mm. mm. waaw xam nga xam nga police police ñun askan wi ñoo ko moom su gisee mbooloo daje dana ñëw ba xam li ñuy daje lu mu doon waaye ñun jóguñu ngir taal war a dèjà sax loolu moom ñoom ñi jiite police bi lañ ci war a wax ak ñoom wax nañ ci moom ba fi ne nii gisatoo leen fi. kon loolu doonul ay wuñ woote woo xam ne wu leen wu leen jaral jóg de te nag seen rôle lañ nekk faaw ñu jóg xool ba xam li nit ñi la loolu rek moo leen fi doon waaye du leneen képp koo xam ne mën nga ci dara ñu ngi lay woo bëgg mu saafaraw ñun daal ci dëkk bi la ñu nekk bëgg lu koy defar bëgg sagub dëkk bi te lii dafa ñaaw ci gis ñaaw ci xool te nit ñi fii dëkk ñoom ñëpp li ñuy li ñuy li ñuy dund dara wóorut ci parce que ñaanuñ ko yàlla waaye mën nañoo xëy xëy. mbir daanu ci kaw nit wala wala dara sol solo boobaa mën naa jur jéyee joo xam ne ji lu ko loolu daal lu ñu ci mën a dimbalee ni ko léegi nag jox nañ ñu ne bu subaa danañ gis sëñ bi noo ngi déglu bés bu ñu demee ba sëñ bi danañ ko wan li ñu taxoon a jóg danañ ko wax li ñu taxoon a jóg te jàpp nañ ne bu ñu àggee ci moom li bëgg lépp danañ ko am lii daal moo waraloon woote bi noo ngi sant nag mbooleem kuñ ko àndal ndax xëy na fes dafa mënta ñàkk waaye ñii ci suñ ginnaaw ñoo ñu gën a leer kàddu ñoo ñu gën a xam lu ñu wax te ñoo ñu gën ñun ñii di wax ñoo ci gën a néew néew métti wu ñu dund. liñ ci bëgg nag du dara lu weesu mu defaru amuñ ci beneen bëgg-bëgg amuñ bëgg-bëgg bu weesu defaru defar gi nag nuñ ko mën a defaree ba mu saafara loolu mooy suñu yitte wasalaamaaleykum wa rahmatullah. mënatuma dem marché ndax ndox mi dama doon ñëw amatuma tayoor ndax ndox mi taabal yi ma doon jaayee yor sama waa kër tëj na ndax ndox mi mënunoo génn mënunoo sawi soonu nag nun tuxu nanu dellu tuxuwaat ndax ndox mi wóor na sëñ Fallou koñ mi ñëpp a tuxu danoo sonn nag ngeen dimbale nu jàppale nu te yàlla sëñ Fallou tax nag Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. ñëppay dañ ak réer